ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu war a ñëw yéen ci benn vidéo am ay leeral yoo xam ne dañ koy def ci cadre yi nga xam ne Naby Djelit yëkkati woon na ko keroog bi nga xam ne Sénégal jàkkaarloo nag Algérie pare ñu bari nag dañoo déggul cadre yi nga xam ne moom la Naby Djelit doon plaideel ki nga xam ne mooy entraîneur Algérie bi moom la Naby Djelit boo xoolee moom la doon critiquer ci communication bi nga xam ne def na ko mu nekk communication boo xam ne communication bu banal la waaw mu nekk communication boo xam kii dóor nañ ko rek mu mel ne kuy défendre équipe am ko waxee mais laata yi ñëw di ko leer dañoo yi nga xam ne ni ki nga xam ne mooy coach Algérie bi football au dafa dépassé sa communication yooyu ndax matuwaay yi ak yëpp boo xool dafa nekk sur place kon du yoon nit di communiquer ci benn communication boo xam ne da nga ñàkk mag si wax ko maanaam sax mu nekkoon dëgg day mel ni nga ñàkk moo tax nga wax ko kon Nabil Djellit euh, franchement sa analyse na analyse boo analyse bu pertinent la bu pertinent bu exceptionnel boo xam ne képp ku nekk africain di nga gën a am fierté ci Naby xam ne moom même bu faralee Algérie tamit mi ngi wane ne lu man tam africain la te en même temps warul nangu ñuy banaliser li nga xam ne mooy football Afrique di ko euh, di ko comp maanaam football Afrique ñu koy comp wala ñu koy minimiser ndax minimiser football Afrique mu ta passé nga ne Sénégal si course Algérie taxawul après Sénégal seen jour yi dañoo âgé après 17 scandale pire la scandale pire naa tax Europe bu ñu demee ci coupe du monde européen daañu ñemee jëf dóor yi euh, te ñu bare bari naan ñi ñu ëpp na seen âge bi te su boobaa doo ko mën argumenté kon saara wax yu mel nii képp kuy Afrique da ngaa war a jóg démentir ko kaaf sax wane ci ay daan ndax danañ mën ndax kaaf yor ay matuwaayam ba annulé ba ba ñeneen joueurs dañu ëpp ñi nga matal ñu matluñ mu jël ñi matlul euh, coach bi taxaw di wax loolu kon moom kaaf la njëkk a démentir kon coach boobu war na am ay daan yu tegu ci kawam kon Naby Jalel euh, parle bien macha allah bëgg nañ ci yow dina ñaanal jàmm ndax communication Euh, mu lépp loolu communication moo koy defal kon kay abonné na ngeen partagé fii ci Rmo Sport merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax a baax.